Dakar ngeen jëf yen ñuy suivre Feeling Dakar TV mbégte ak contentement lañuy am di janowaat ak yéen ci benn entretien spécial ak saltige Waly Diouf Salmakoor bi nga xam ni itam jàmbaar la lu ko yàlla may ci ab gis. Euh, mu koy wax ci askan bi euh, saltige ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw Abdou ñu ngi lay fay. Mhm. di nuyu waa Feeling. di nuyu directeur bi ak jabaram ak soxnaam. gi mhm. nuyu ay doomam. Mhm. di leen di safoo di leen di bàyyi xel di leen di ñaan yàlla yàlla na ngeen am jàmm si nawet bi lépp luy safaan. yàlla na mu ump leen. ñëpp ak Sénégal ba mu daj. di nuyu kilifa diine yi. kilifa aada yi di ñaanal ñu nekk si lali hôpital yi. Mhm. yal naa ne yàlla yëkkati fëgg seen bopp ñu jóg. amiin ci barke. yàlla na fa yàlla teggi natt yooyu nga xamante ne métti na lool. amiin amiin te ñu gën cee dawal ndimbal. amiin. te ñu am ñu leen war a dimbale. ñuy jël seen alal di ko yóbbu feneen te ñi yelloo ndimbal dimbaluñ leen. yal na yàlla wóññi seen xel yi. ñu dimbale ñu nekk doole. amiin te ñu dimbale seen mbokk yi tamit. amiin amiin di ñaanal Sénégal ñu ne ñëpp am jàmm. amiin waaw saltige Waly Diouf euh, tey jii am na ci ay xoy yoo xam ni demoon ngeen fa ci nawet bi tout d'abord euh, lan ngeen gis ci nawetu ren bi. waaw Abdou di lay ñaanal jàmm rek di wax ne xooy moom saay bu amee at bu jot at bu jot. Mhm. man saltige Waly Diouf man maa fi njëkk def xooy. ndaxte boo seetloo jamono bi may def xooy mooy booba asamaan bi tawagut mu tombee woon jour boo xamante ne maanaam dañ taa teg ñaari semaine xew xooy bi am bi xooy ba amee kenn ku nekk di wax sa xam-xam man comme man maa invité xooy bi man maa tëgg xooy bi mënuma caa sori hmm. mais dafa am loo xamante ne ñun dañ dañoo ànd ak moom Mm-hmm. yàlla def ko ñu judduwaale ko mm-hmm. bokkut ak li ñu donn ak li nga dem tarbiyewu ji feneen mm-hmm. lii judduwaale na doon bés ba jot yàlla jox ñu ko directement euh, di koy sant suñu borom bi xooy ba amee yaram yi tàng mënatumaa toog di gis li may gis te waxuma ko ci digg penc mi nga xamante dañ cee woo nit ñi ñu yàq seen nelaw yi ba am na ci sant gi boo xam ne rajo bi ne ma comme yaa dégg xooy bi yow toogal rek ñu la ñu lay waxal ma ne leen déedéet dafa dem ba bopp bi dafa feer te lii faaw ma wax ko àddina bi dégg mhm. joxe ngeen fi version bu nekk joxe ngeen fi alxames joxe ngeen fi jeudi joxe ngeen vendredi mhm. taw bi mhm. asamaan bi xooy sama xooy bi gis naa ci fukki fan ak juróom ñaar dix-sept jour yoo xamante ne si jour yi ak jour dimanche euh, dina taw ci diggante xooy bi ma def nii ak fukki fan ak juróom-ñaar mooy dix-sept jours. Mhm. dina dina tombé dimanche. dimanche dina taw ñi ji gerte dem ji gerte lundi dina tawaat ñi jiwu doon ñi jeexalu doon gerte dem ji gerte. Mhm. lundi tawi dimanche boobu ak tawi lundi boobu dañuy tegalantoo. Mhm. te boobu moo nekk ndox bi njëkk a wàcc si suuf te doon ndoxum nawet. yàlla dogal mu def mu def loolu mais am na dëkk yoo xam taw tawu doon foofu taw doon mu nekk côté seen côté yooyu ay côté mbuur wàcc si si dëkk sin si nii ay joof yor ak yooyu noonu ndox mi bëriwu fa woon mhm. ñu demaat ba fan yee passé ma wax leen jour yi àllarba am na benn xooy bu amoon mhm. euh, ma am sama benn benn xale boo xam dama ko ngemboon ne ko xam naa bu nii may wax nii su fekkee mu ngi déglu Feeling Dakar nga xamante ne ñëpp a koy bàyyi xel mhm. euh, xale boobu man maa ko ngemboon ne ko boo demee waxal ma ñi nga xamante ne jotaguñ ndox mi nawet bi ñaari sàkk la ñaari ñaari ñaari leget la ñaari leget mooy ñii dinañ am jiw ñi jiw bu jiw bu njëkk bi dina baax mm-hmm. ñaareelu jiw bi boobu dina am ñu am dina am ñu amut ñi am mm-hmm. nag dinañ bari te buy may ñu amut mais nag jeudi jeudi bi ngeen dégg xooy bi euh, ak talaata bi ngeen dégg xooy bi talaata mardi mercredi jeudi vendredi di dina taw mm-hmm. bu ñi ñi tese woon ndox ndox ma dina bari lool ci jeudi boobu yaakaar naa jeudi bi passé na passé yaakaar naa taw na foofu wala waaw taw na taw na waaw. waaw taw na taw bu mat te mbuur taw bi côté mbuur la ëppee yi nga xamante ne ñoo doon jooy ndox mi ak ak côté yi nga xamante ne woon nañ affaire bi gàncax gi commencé woon di dee. waaw ñu ñu xuus rek Abdou Khadir comme ñu gën a xuus affaire bi. Mm-hmm. Euh, xooy dafa doon loo xamante ne comme li may wax rek sant gi dafa doon loo xamante ne dañ koy fal doomi aadama. Mm-hmm. te ku ko maîtrise pour ñu fal la ko du maîtrise du dem jàng ji ko. Mm-hmm. du dem sa waajur de na doon sant gi de sant gi dañ koy fal nit xool xool ne maanaam gox ba nga dëkk. Mhm. xam-xam bii nii sant gi ko mérité. wala jaraaf wala farba wala wala wala wala wala wala wala wala yeneen comme Salmakoor ñoom ñoo ko yeloo ñu fal la ko mais jamono bi ñu toll nii toll nañ diggante boo xamante ne tey bu ñu woote woon Sénégal ñu ne kan moo am carte sant gi. Mhm. wala kan moo am loo xamante ne ñu nga wax nit ki ne lii la doon lee la doon lee la amul kenn ku ñemee wax ne man lii may wax nii am naa sañ-sañam. Hmm. kon dèjà ñu bari ñii dañuy yi ñii di mbuboole ñii mbuboole ñii am nañ xam-xam nag ñii dañoo dem jàng. Hmm. ñii seen waajur génn àddina ñu jël bagage yi ñii bëre ba bàyyi bëre dem dem dugg si bagage bi hmm. mais ñun dañoo doon salmakoor doon saltigi benn jour xam naa wax naa ko si sa boobu bi ma wax ne Côte d'Ivoire. Sénégal da koy dóor mais nañ bàyyi xel arbitre bi saay bu ñuy ñàkk arbitre bi moo ñuy moo ñuy ñàkkloo euh, kii bi te saay bu amee mhm. waaw saay bu amee bu arbitre bi ñàkkloo ñu ko foofu arbitre bi maanaam da maanaam dina am dinañ ko sanctionné loolu mhm. foog naa bi ma koy wax lakk-lakku ma dama ko wax devant la public mhm. ñoom ñi nga xamante ne seen gis-gis soriwul wala nga xam ne ñoom bu bu Firawna di doon dund ba léegi mun nañ bokk ci xeet boobu. da mhm. xeeti Firawna mu ngi fiy dund ba mu ngi fiy mu ngi ci jamono bi ba léegi. Mhm. mais xeeti Seydina Muhammad mu ngi ci jamono bi ba léegi. te mhm. xeeti Seydina Muhammad amul wéddi. nag même boo wàccee woon asamaan bi sax ba léegi am na ñoom duñ nangu. ndaxte yàlla rek moo dul juum yàlla rek moo dul wax ba bare mu ñàkk am wax nga dëgg yàlla dama la ne ñaari qualité mooy am yàlla bu soxlaa suuf boobu nga soxla yàlla mooy maanaam lii xew ëllëg yàlla rek ko xam. Hmm. waa léegi ana nit ñi léegi ana yàlla xalifa xalifa yàlla ci kaw suuf mooy doomi aadama yi. Hmm. lan moo tax jinne di gis doomi aadama de doomi aadama mënul gis jinne. Hmm. am na ñoo xam ne dañuy toog fii di doomi aadama mën na gis jinne sax mais ci ay itam la. am na ñoo xam ne dañuy wax ne am nañ jinne sàngam am na gëlu jinne am nañ jabaru jinne am na lii lii du dëgg. Abdou Khadir boo gisoon jinne. bu la yàlla mayoon kéeraayu jinne tuuti. nga xam ne xam-xam rek. mooy attan mooy attan gis-gisi jinne jinne ñaari jinne bu ñu doon bu ñu doon romb doomu aadama di ñoom mm-hmm. kenn ki day xëcc ne ko wala ngeen e-, nañ écarté mm-hmm. gumba baa ngi ñëw mm-hmm. ñun gumba lañ ñu jàppee léegi léegi saltige Waly Diouf euh, ci euh, cosaan li ngeen def mu di xoy ak yéen li leen yàlla may ci seen xam-xam ngeen di gis euh, tey am na ñu bëri ñoo xam ni dañu daal di wax rekk nii nawet bi dina daal di tàng ci ay inondation jëm ci ay bàkkan yu yéen euh, seenu xoy lan la leen euh, won ci nawet bi waaw ba tane yu rot ak jëfkat yu bon yi nga xamante ne maanaam dañuy ànd ak seytaane mhm. euh, man dafa mel ni comme li ma la wax rek maa fi njëkk a teg xooy di la daa mel ni sama dëkk laa ko njëkkee mhm. ñii lor rek ñi nga xamante ne guddi la ñuy bañ a gis ak wala wala jigi njolloor mhm. loolu dama ko njëkkee sama dëkk ba pare indi ko Sénégal dama ne man li ma gis Abdou Khadir waxuma lu keneen gis. Mhm. pour mu gën a gàtt. Mhm. man waali man li ma gis. Mhm. réew moo dem ak bu jot dina am ñu dee dina am accident loolu mun a ñàkk. loolu am na. mais dafa am accident nu muy amee mu leer na ne lii nii moom dëgg dëgg dëgg dëgg yéen nañ ko sofóor ba wala yéen nañ ko jinne yi wala yéen nañ ko yéen nañ ko euh, rab yi. déedéet dafa am waxoon naa ko daaw si sa plateau waxoon naa ko daaw si man ak euh, Bamba ma ne ko. Hmm. booba mun a ah, ma ne ko nañ bàyyi jinne yi ñuy tuumaal ak rab yeeg yeneen yi mais accident yi chauffeur yi am nañ ci wàll hmm. ñiy defar permis carte grise am nañ ci wàll hmm. ndaxte tey nga defaral ku mérité wul permis ak carte grise mu dem defi code code de la dem jàng ji code de la route ba mokkal ko nga ñu yëkkati permis jox la ko ak permis mu jafe ñee ñu yëkkati passeport jox la ko yow yëkkati carte d'identité jox la ko ngay dawal kayit yu nga yor kayit yu mat nekk citoyen boo xamante ne sa dara man wul ci Sénégal wàccoo ngaa yooni Sénégal yow yow fu mu nekk nii nga xamante sa xamante bopp di say moromi ndey say moromi baay say moromi kilifa yu mag yi fi nekkoon seen i doom yi nekk ci biir oto yow ngay dawalee oto nu la neexee wala nga naan sàngara ba ne tët wala nga yor sa xamadi mun nga naan sàngara di dawal oto normal mais mun nga xamat xamadi kooku naan di sàngara moo ma gënal ku xamadi naan ko di sàngara moo ma gënal ku xamadi ba pare nekk di dawal oto ndaxte fu nekk nii yow sa reewaangi rek ngay gis mais gisoo li nit ñi di wax mm-hmm. bu soq amee bu boobaa ñu jiñ ko jinne ak rab yi déedéet gis si soq mm-hmm. mais dafa am ñaari côté yoo xamante ne maanaam am na am na njabootu jinne loolu yàgg na fa jiitu na si juddu mm-hmm. te accident moo su fa am muy boo ma jógee Pout boo jógee sa xotaan di dem Pout waaw am na njabootu jinne yi fa ne boo jógee boo jógee euh, fii euh, nu mu tëddee sax boo jógee Mbour. Hmm. di génn Mbour diggante Mbour euh, Safra diggante Mbour waaw ak Sanjara. Hmm. am na njabootu jinne bu fa nekk te njabootu jinne yooyu yaay bi mooy toog góor ji di dox ak njaboot gi. Hmm. ak yeneen ak yeneen yeneen yoo xamante ne maanaam bët bu ko gis lamiñ mënu ko wax. kon ak accident yi borom réew mi nañuy jàppale ci ñun ñi nga xamante ne borom yi xam-xam lañ yàlla am lu ñu may. ñuy jàppale réew mi réew mi mënoon nañoo bañ a ñor li ñu waroon a ñor kenn ko nekk toog sa kër ak sa njaboot sa njaboot kese ñor la kon bu boobaa waxoo ne yow doonoo citoyen mais ñun ñu doon citoyen képp ku fi falu yàlla fal la fi ñe mu neex la mu naqari la dañuy ànd ak yow xam ne ndogali yàlla la te ñu xam ne yàlla moo waxoon ci sa juddu jiitu sa juddu ne di nga mos a doone lii. d'accord ndaxte ku xool diggante Ousmane Sonko ak euh, ak Diomaye. Mhm. nga war a xam ne yàlla du nit. déedéet. jo ah, ñëpp képp koo xamante ne maanaam euh, kii nag maanaam taxaw nga ci ne joomaay ànd nga ak joomaay hmm. Sonko tax nga ànd ak joomaay hmm. mais jamono biñ toll nii moo tax ma ne leen bitiw war takki bitiw nguur ak war takki nguur du benn hmm. Sonko war takki nguur la am kale am bitiw nguur yàlla ne Sonko du jiitu kee mooy jiitu Sonko toppaat ci ginnaawam mel na ni sax Sonko moo fi président kon nañ leen bàyyi ñu doxal li nga xamante ne mooy yoon ñu jàppale askan bi jàpp li li ñu waxoon ci gannaaw. xam ne Sénégalais yi dañoo gaaw ci baar. ñu bañ leen a baar bañ leen wax ne ñoo ko fi waxoon defuñu ko. waaw ci loolu sax ci loolu ñu bëri dañuy ñaan tàqaliko ak Ousmane Sonko wala bu ñu ko ñaanul sax ñu ngi wax naan Ousmane Sonko dina am problème ak Jomaay Jomaay gën a leeral la ne ñoom ñu am problème moo gën a yomb moom ak Ousmane Sonko ñu am problème ñu di wax naan Ousmane Sonko ak Jomaay dañuy am problème ñooñu moom euh, loolu noo ko gisee. waaw ni ma ko gisee mooy comme man man man ak yow. Mhm. ñu bokk ndey ak baay. Mhm. ñu nekk ci biir kër gi. Mhm. ñu juboo bay bëgg a dee. seytaane jóge fale bugg a taqale suñu diggante ñu ñaar. seytaane day xool ki gën a gàtt xel gën a goree bi mu jaarale ko si moom kooku commencé am mbooloo commencé am xeli mbooloo commencé xelam di commencé di daw di rooti di ñëw di indi. bu yàggee ñu ne ko yaa fi ne yaa fi ne lii war a ko wan a nangu bu boobaa mu def naka su noonu te yàlla du ànd ak kuy war. Mm-hmm. yàlla du ànd ak seenkat yàlla du ànd ak workat yàlla du ànd ak njabooti firaaw na mm-hmm. ba pare bu boobaa tamit kee ngay tuutal day gën a am doole mm-hmm. muy Sonko muy cadre Sonko muy cadre Diomaye ak léegi nag ñi nga xamante ñoo nekk seen ginnaaw di jaay saytaane wala ñii di dem si sëriñ bu jàppal leen bu doon bu doon mbirum sëriñ kese kese kese kese kese te yàlla tudd ko sa araf yaakaar naa ne moom Serigne bay toog yor xalimaam ak daam wala Serigne ba toog yor jalangam moom ak yeneen nit jóge fay fay la ay milliards pour nga yàq diggante boobu noonu danga koy xool diggante sa ndey ak sa baay maanaam boo leen tàqalee yow allah kulli alim di nga ànd ak kenn si ñoom te bu subaa boo demee ba màgg di leen bugg a boolewaat ndaxte bu ko ngir ay doomi baay yoo xamante ne bokkuñu doomi ndey yoo xam ne bokkuñu baay kenn ñaanu ko yàlla. d'accord kon leen bàyyi yàlla may. ñu doxal jéem a yërëb yi jéem a xool ñu ne ci prison yi ñu teg leen foofu te yi mérité ko ñu xool ñu néew doole ñu jàppale leen ak béykat yi ak yéen ñëpp ak nappkat yi. ak ñi nekk ci hôpital yi. d' yow daal gis nga ñoom seen diggante lu rafet la itam lu yàgg lay nekk te dara du ko yàq. dara mu dara mun na ko yàq de déggoo li ma la wax dama la. Mhm. man waali man sama gis bi ci ñoom ñaar. Mhm. maanaam depuis ba may ba may wax ne. diw dina bokk wala diw di bokk mhm. mosu mosee boole saa yi bu leen yàlla boole dinañ taxaloo xam nga joomaay mos na toog ne Sonko nekkul doon xaritam mhm. mais mais fii la nekkee xaritam yow koo tuddee doom mhm. mu takkali la jabar wala nga takkali ko jabar kooku xarit nekkul foofu xarit la man loolu man ko man loo ali ku ma defal loolu mu ku ma tuddee doom sama xarit la de am na ñu ma e doom am bagay samay xarit lañ nee na xarit benn lay doon mais ma loolu ki la yéene may la soxna wala mu takkali la ko wala mu wala wala mu jàngal la alxuraan def loo xam ne dafa jafe si yow. Mhm. bu pare wala mu yëkkati doom bakkan nu mu mel mu gis ñu def famille yëpp tuddeewu leen ko mu tuddee la ko. Mhm. sa xarit la mhm. kon ñaari xarit yooyu ne fépp fépp fu ñu mën a taxaloo ëllëg ñoom ñaar nañ bàyyi xel li may wax. saa bu ñu warantee ñoom ñaar muy joomaay ci nguur gi yow muy Sonko nekk premier ministre yëpp ak ñoom ku ci war sa morom da ko gis njoro digg njoro te doo ci mun dara. d'accord d'accord léegi nag ñu daal di euh, dem ci combat bi nga xam ni mu ngi am. Euh, diggante Tapha ak ki nga xam ni moo di euh, Balla Gaye numéro 2 mu nekk combat boo xam ni askan bi ñu ngi koy xaar yow lan nga gis ci combat boobu. waaw combat boobu euh, comme li ma la wax rek sant yàlla alhamdulilah ba ma yàlla wonee comme li ma leen di wax rek mhm. man damay bàyyi dernier jour ba sëriñ si nga xamante ne maanaam dañu war a jàng diwaan mhm. wala sëriñ si nga xamante ne yàlla daf leen daf leen may côté bii mhm. ñu bugg a rafal lépp Euh, waxoon naa ne lamb man mii maa ko lamboo. Mhm. ndaxte même bu ma aar bu ma àndee ak yow sax. Mhm. la lay daani ëllëg dama la koy wax. Mhm. ma ma tudd ma tudd tudd si kenn rek koo xamante ne dina ma dëggal sama wax bii ba jour bu muy dégg li ma ko wax muy dugg si oto bi. dafa dem ba dugg si oto bi ba dugg si kër gi dina doon ne. ba ma te jour boobu dugg ma jour boobu gars yi dañu ma jàppoon si si bi ne du ma dugg de. mais ponkal moo xamante ne kenn ëpp ko doole si nguur kenn ëpp ko doole si si homme de tenue yi. Mhm. ñi fa nekkoon kooku moo ma ñëw may ma dugg. du ma mhm. duggee am na keneen koo xamante ne Aziz Ndiaye sax Aziz Ndiaye sax jour boobu dafa génnoon si biir ñu koy woo pour mu dugal ñu mais dafa lank dugal ñu. Mhm. ñun ñëpp ñu ngi fa taxawoon Balla Balla kii Sa Thiès jour boobu ma fanaan këram ba boo set nekk si samay buum bu am ndam bu leer nañu woon ko ko ne ko nag waroo di ngemboo feneen ñëw si biir kër gi waroo ngemboo si kër gi di jóge si kër gi di jéggi li di def damay dangay ngemboo feneen ñu sa sa yaay ñaan nga nekk ci biir oto nga dem bëri ji Sa Thiès jour boobu même boo fekkee woon da ngay dafay mel ni am na ku ma mun a benn caméraman bu ko mën a seede sax mm. jour boobu man ak yaayam ñoo ñoo doon joxe sarax yi man maa solo lu zone nii masku yow ak yaayu Sa euh, Thiès mooy waaw mooy caméraman boobu te mu nekk xaw ma FM la ne xaw ma euh, kii mm-hmm. te mu gàtt te mu gàtt nii wax nga dëgg wax nga dëgg xam naa duñ ko miin waaw léegi kooku ñu ne saltigi Waly Diouf mu ngi ànd ak Sa Thiès kon mun nañ jàpp ne Sa Thiès mu dina am nam ma ne leen ndam bi day sama génn ci buntu kër gi moom moo may tere am ndam wala moo may moo may moo may am ndam. Mhm. jour boobu noonu bi ñuy def dañ ma bàyyi ci ginnaaw na instant yoo xam tam nañ ko. Mhm. mu nekk ci ay débat yoo xam sotteeku li muy sotteeku rek jéggi affaire boobu te wax naa ko ne li mel ni ku sondong ñu ngi ko nga xam ne dañ laa jege. ci mbir mi ci moom ci ñoom lañ ko jaarale boo ko jéggee def di nga am defet mais billahi wallahi boo ko jéggewul léew euh, amasee sax boo mooy daan boppam daan mhm. nam naq nam ni mu ngi ci sa mhm. mais loolu bu ko jéggee kon dèjà comme li ma la wax léegi rek ku ci basé wu mun nga jàpp ne waa li waxoon na ne diw dina daan te daanu loolu mënuma ko bañ loo xam ni waxtaan la boo waxtaan ak Sa waaw mhm. Sa Thiès këram laa moo ma jox sama néegi bopp man kese Sa Thiès may dégg rek dina ma dégg d'accord dina ma dégg te jour boobu dama ko ne ñaari ndam ñoo war a ñib ñaari ndam ñoo war a ñib seen loolu si benn weer géejewaay xaw ma xaw ma si benn at géejewaay. Mhm. ñu ne ma ban ak ban ma ne ko bu bu bu bu euh, kii bu la dëgër ak sa ñaari ndam yi dama leen gis mu leer nañ mais lii ma la wax nii danga xaw ma nuñ def ba sa waa kër cuune ñu suul ko fi te te mënu leen gis loolu mais ba a ko loolu doo xam ne li ma ko wax dëgg la. d'accord jour bu mu daanoo. bu muy ñëw euh, Balla di koy lëng nii. Mm-hmm. nit ñi ñëw na ba si ñëw na ba si samay tànk xool ma ne ma ah la nag ma ne ko muñ rek yaa ngi ci kanam bu léegi percé ko gëm gëmee ko suñu borom te ama seen ku xam ne ku xam ama seen xam ne ama seen sama mbër la. Mm-hmm. mais bu ñu jaabaarle kii sama mbër la lu tax may jàppale keneen wala leneen non non mbir mi du ko xam-xam bi yàlla daf ma ko jox pour ma social ci képp ku ñëw war naa la mën a liggéeyal. d'accord léegi léegi léegi saltige sa digg ba Tafatine bi ak Balla Gaye bi loo ci gis. Tafatine moo tëddee ci moo moo. Tafatine moo téye victoire bi ci loxo mu leer nañ. Tafatine moo téye victoire bi. te fu ma indil fulaar bi. Mhm. Tafatine waa man waa man kat digg waa la jiw. képp ku dëkk reefan. Mhm. képp kuy mbokk Tafatine képp kuy sëriñ di ñaanal Tafatine. waaw bul soxor xooli xooli iman xooli iman na fee benn si sa xol bi. te xamante ne buñ demee ba tey dara lu dul ñoom ñaar. Mhm. buum ba dina buum ba dina dal te Tapha Tine daa daan Balla Gaye. ah saltige li nga wax garaaw na de. bu jàppee Balla Gaye da koy daan buñ doorantee Balla Gaye ba Balla buñ doorantee ba taf loxo Tapha Tine Balla Gaye Balla Gaye dina perte ren Tapha Tine da koy daan. bu ah. jeexee kàtt afi nag bu bu ma ko jàppee bu dóor mu daanu ko wàgg si suuf mais mais Aziz kii gis nga combat bi na jàpp ne. combat bi ci ndam lay jeexee. ku wax ne combat bi di jeex dina waxu dëgg wala combat bi du am waxut lu am mu doon sëriñ loolu du dëgg gisuma ko man waa li man gisuma ko bokk gisuma ko li ma gis combat bi jamono bi toll nii lu ko teree am amut li teree tabaatin daan Balla Gaye gisuma ko. d'accord mais sa liggéey ñëpp ñuy ñaanal Balla Gaye nag nañ bàyyi xel li ma leen di wax bu baax. Mhm. damaa juumoon boo wax Balla Gaye boo wax benn mbokku Balla Gaye bu nekk Espagne mu ngi may dégg. barke Seydina Mohamed démb la ma mujjee woo ne ma dégguma la fi li nga gaar moo tax ma woo la en Mhm. ma ne ko mu ne ma ñëpp sëriñ yëpp wax nañ ne victoire bi doxu na si Balla ma ne ko sëriñ bul ma di wax waxu sëriñ boo bëggee ñu waxtaan man ak yow. Mhm. dama ne Tapha Tine moo téye gum ndam mi mu ne ma ah waale muy fexe fi ma ne ko li ngeen gëm def leen ko li leen sëriñ si digal nee na sëriñ si nee na saax mooy daan Tapha Tine. Mhm. Tapha Tine day billahi wallahi talaay lii daan Balla Gaye di ko yóbbuwaale si làmb ja. déet waaw lii daan Balla Gaye di ko yóbbuwaale la perte mbirum gàll mystique. Hmm. <laughs> ree nga de. <laughs> waaw. Balla Gaye ci tafaatin la perte mystique mystique boobu tafaatin mystique boobu bu ma waxee Balla dina dina dina xam ni ma koy wax ci mhm. ne. tafaatin Balla Gaye ci tafaatin la perte mystique boobu ak ak yëgëli. d'accord. waaw xam nga mystique boobu ban mystique la. mooy wan. am na benn ànd ak loram boo xamante ne mu ngi koy joxoon benn nombo. Mhm. nombo boobu dañ koy tëj gis nga boo ko tëjee ci sa adversaire. Mhm. ñaari nit lay gis. maanaam fi muy gis sa kanam. maanaam bokkul ak kii bëri ak yow. d'accord. mu def ko ci gerte Tapha ndax mhm. gisuma la boobu mooy Tapha Tine mu ngi làmbaatu Balla Gaye Balla mu ngi doon Tapha Tine mu ngi arrêté Tapha Tine mënu gis Balla. Mhm. ñu demaat ndombo boobu leen doon béy mooy gëstu. d'accord léegi bi ñu demee booy bi ñu demee ba ñu génn saako yi ñu wëññeeku si waat Balla daa arrière gis boo boo boo relantiré affaire bi tey boo ko seetaanaatee nga xool li ma lay wax. d'accord Balla tourné wul tourné wul dafa dafa arrière. ñëw woo ta arrière woo Tapha ñu ñëwaat mu defaat noonu Tapha même chose ci la dóor Tapha ci la ci la jàpp dóor kaaw Tapha def ko kanam bi kale. mais Yékini mhm. mais saltige. Yékini même chose te Yékini na perte galaaj boobu te billahi yoratul galaaj boobu. d'accord galaaj boobu nag moo moo ñëw si Tapha Tine galaaj boobu mu ngeen Tapha Tine. Ah. galaaj boobu mu ngi si sama loxo man saltige waa di jour bu may dugal ñaari ñaari képp sengoor ñaari képp sengoor yooyu. Mhm. téere boobu. billahi day fekk ñu arbitre dox génn seen diggante sinon bu ma ko keppee te bi génn seen diggante arbitre arbitre jour boobu lay gën di arbitre wu ci ci ci combat bi. d'accord mais mais saltige. waaw nga jàpp ni bu ñu demee ba ci biir combat bi euh, victoire bi mënul dem ci Balla Gaye. xanaa day fekk ma de. ah. wax li ma la ne. Mhm. jamono buñ toll nii. moom. naa ko ci wala may junj de dama leen ne bi mu ngi ci loxo Tapha d' accord tey victoire bi moom si loxo Tapha Tine suba man maa lay wax personnel euh, euh, euh, bu changé man la changé mais du changé man maa la wax ne Waly. Mhm. waa man Waly waa Réfane gis naa ci ñoom corne. Mhm. bu gën a dégg mhm. gis naa ci waa Réfane corne. d' accord. xeex bu mel xeex kii di kii di kii xeex bi dem na ba am na ñoo xamante ne ay complices la ñu ko jege ñuy jóge beneen dëkk beneen beneen beneen maanaam comme nga ne nga ne Pikine Yaraax genre yooyu noonu daal. Mhm. ñuy jóge côté côté côté beneen quartier di dem ci quartier Modou Lo di am complice yoo xamante ne xaalis moo lay fa teg. d'accord ñoo xamante ne xam ne Modou Lo mu ngi jeexal ci ci lamb ji. te moo la bu jeexale si làmb ji seen diwlin seen seen seen dina gëj a tooy. d'accord am na ñoo xam ne ñu ngi bëggoon ñooñu di jiw. naqal Moodu pour Moodu mun a joxe couronne bi Moodu mun a daal bu yëgoon nañ tëdd nelaw. d'accord loolu am mun a gudd am amagul dama leen di wax ne dama lay wax ne Tapha bu daanee kii ba pare ma wax la kii jël couronne bi si Moodu. d'accord waxoon naa leen waxu amoon na télé bu ma ko waxoon. Mm-hmm. te xale moo koy jël si moom roi bu bees lay doon roi boo xam ne kenn mosu ko kooku moo koy jël si Moodu. d'accord d'accord saltige kon kon ñu ngi lay jaajëfal waxtu bi dañoo xaw a xoj.